parce que wàññi bi rek am na solo c'est am na ñoo xam ne dañ naan dañ ko xeeb mais ku xam dëgg-dëgg doo ko xeeb ndax Sénégal maanaa nit ñi seen bopp ñoom lañu war a gënal euh, jàngal àddina ñu xam lii xew ci àddina bi lu mu doon fii mu ne tey boo jógee boo génnee réew mi réew boo dem loo fa daan jënd benn tey ñaar ko koy jënd wala ñett te te li tax mu cher loolu loolu tax dund senegal cher. te dund bi nga xam ne nekkul sa loxo ki ko moom di ko bay moom moo la koy jaay am si ñoo xam ne sax dem nañ ba ne duutuñu jaay parce que dañuy dañu dañ koy téye ndax pour bu fekkee dund manqué na ñu war a dundal seen réew. Mm-hmm. li nu war a def te ñëpp war ci bàyyi xel mooy ñu dem ci tool yi. fexe mbay mi ba mën a bay lu dundee loo xam ne nun mhm. noo ko moomal suñu bopp di ko dundee mhm. tey mbay moomu buñ ko bayee ba pare ñu bañ koo euh, basarde mhm. parce que da ngay gis koo xam ne day am dugub am ñebbe am am mboq dem jaay koo dem jënde ko ceeb te nag loolu loolu moo gën ci suñu wér-gu-yaram nun dañu war a fexe ba loolu nu di ko lekk waaw te loolu état bi aussi am na ci cër parce que am na am na loolu bu bu fekkente ne gisuñu luñ lekk daa daañu ko daañu ko lekk tey it mag ñi loolu lañ daan dundee soo xoolee feebar yi ni mu baree léegi dund bi ñu jëggaani rek la waaye bu fekkoon ne ci réew mi lañ koy bayee di ko di ko fi lekkee daanaka euh, wér-gu-yaram dana fi dana fi yaatu lool te loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax bi ci des itam mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekk tey yoom la yàlla jox nguur gi dafa am lu ñu dige woon te damay wax toujours ne digee daa d'accord nañ ci parce que euh, bi nga nee su ma ñëwee danaa def nangam def nangam def nangam loolu digee la waaye nag fi ngay digee demagoo fa xamagoo lu fa xew man su doon man nag bala maa digee damay ñëw ba toog xool li fi xew xool fi fi xam ne fi la suñu doole toll yëpp ak li nga xam ne mën nañ koo def mën na lii mën nañ koo def waaye boo ko boo boo boo ko digee ba noppi ñëw la ngay fa yaakaaroon fekkoo ko fa la nga bëggoon doo ko man hmm. donc kon nit ñi seen bopp ñoo war a am compréhension kat réew la te réew yor ko du ay caaxaan kenn ku yaa ci war a bàyyi sa xel boole ko ñu ci baree baree baree bari du ñu fay ay tax te yeneen réew yi foo fi dem loo jënd taxi baa nga ci te ñu ci bari du ñu fay taxi ñu ci bari du fay impôt loolu nekk na loo xam ne lu lu lu yéeme la bi si des li nga wax sànq ci euh, njëgu mburu mi fii ci sa euh, Dakar mhm. ak ci ci région yi tolluwuñ effectivement tolluwuñ mais lay bi ñu ci dugal mooy transport bi. parce que boo boo jëndee fii euh, boo fi jëlee fëriñ bala ko yóbbu ci région ba nga nekk transport ba ngay fay da nga koy tagaat ci njëgu mburu mi. muy Casamance muy ci région yëpp. donc kon loolu itam war nañu bu ñuy négocier ñu négocier benn prix boo xam ne day day day day daj Sénégal nga xam ne même bu Dakar bu ci buy teg tuuti ci ci li li lim ko dikk. mu mu wàññil ka nekk Ziguinchor wala ka nekk Tamba wala kenn wàññi wàññi mu wàññil ko moom itam. Mm-hmm. la war a yokk pour mu gën a cher. Mm-hmm. su ko defee mu nekk loo xam ne ñëpp ñëpp ci yem loolu nekk na lu lu lu am am am solo. Mm-hmm. waaye li li ci ëpp solo rek mooy waa réew mi seen bopp. nañ xam seen réew. te réew mi kenn ku kenn du ko développé lu may waa réew mi te lépp loo xam ne dafay doxal réew mi ku ko yëkkati ku ne dañ la ci war a jàppale pour réew pour réew mi dox.